billahi min ashami alim bismillahi irrahmani irrahim jaaka alxaq wa zaaka albaatilu inna albaatilu kaana zahuha asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu assistance bi fi teew yëpp di nuyu sama collaborateur yi nga xamante ni ñoom laa toogandool ki ci jiitu moom mën cee cité monsieur Amadou Camara mi nga xamante ni moom mooy tëdd liste départementale bu coalition aar bu coalition action bu professeur Daouda Ndiaye ci département bu Tivaouane mu am feggoo ci ndeyjooram ki nga xamante ni mooy soxna ami Aminata Camara mi nga xamante ni dafa bokk ci liste nationale bi à ma ma am Moussa Tine mi nga xamante ni mi ngi ci liste national bi moom it dëkk Pambal ñu am soxna Ami Gaye mi nga xamante ni mi ngi ci suppléant ci liste département bi ñu ngi xaarandi soxna Aïcha Koundoul aussi mi ngi ci yoon bi di nuyu mbokk Tivaouane waa bi yëpp di nuyu presse local bi nga xamante ni ils ont répondu massivement à notre appel bu ngeen gisee toogaay bi bii ngeen xam ni am na lu ko waral lu ko waral nag du lenn ñun ñi ngeen gis ñun ñi ngay xamante ni moom mooy la coalition action département Tivaouane ñu fas yéene ñëw amoon kàddu yoo xamante ni fas yéene nañ ko waxtaan ak Tivaouane waay bi ci jiitu mooy fas yéene def suñu déclarati déclaration candidature ci élection législative du 17 novembre yi nga xamante ni moom lañ ci jëm defe naa ni du ma gëddal kàddu gi incha allahu tey nag kàddu gi ni mu nar a demee dañuy jox ki nga xamante ni mooy soxna Aminata Camara moom it dina wax ci nga xamante ni ci investi la wax ci turu jigéen ñi bu ñu paree ñu jox Moussa bu ñu paree l'honorable monsieur Amadou Camara daal di tëj débat bi waaye balay boobu rek ñu waxaat waa Tivaouane yëpp di leen tàllal loxo di leen wax ni coalition action dafa am benn particularité bu ci am ndax defe naa ni c'est une première à ci histoire politique Sénégal benn coalition investirandoo ci benn département plus de six personnes environ huit personnes defe naa ni loolu chance Tivaouane la exemple bi ma ci mën a cité mooy Moussa mi nga xamante ni mi ngi dëkk ba Pambal depuis 1960 ba léegi Pambal mëstaam doom bu leen mës représenté ci élection que ça soit euh, muy législatif wala muy présidentiel bu yàlla dogalee coalition action dugal ko ci biir ñi nga xamante ni ñoom lañ ko ci investi yi am nañ yaakaar bu ñu am ci département Tivaouane waaye joxaat nañ Tivaouane cër bu baax a baax ki nga xamante ni mooy soxna Ami Gaye dëkk Kër Ndioba ba histoire des histoire moom mu muy première investi bi nga xamante ni moo jóge Kër Ndiob dëkk Kër Ndiob kii compte man mii di toog di wax ak yéen di Habib Fadera nekk ci liste national bi. defe naa ni ñuy tàllal loxo Tivaouane waa yëpp di leen wax ni seen i doom seen i jarbaat seen i am du jàmm ñoo leen di tàllal loxo pour ngeen jàppale leen ci élection législative yi nga xamante ni ci lañ jëm au soir du 17 ñu mën a yooxu vive la coalition action sans autant plus tarder damay jël kàddu gi bàyyi ko ak Aminata Camara. boo ko defee mu wax au nom de tous les femmes de la coalition action ci département bu Tivaouane. bon asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di présenté wu Aminata Camara madame Diop bu coalition action parce que ne jàppale Amadou kamara ñu investir ñu ci liste député yi ñu fas yéene teewal waa ñun jigéenu Tivaouane foofu ci assemblée nationale fas yéene jàppale jigéenu Tivaouane. représenté leen en même temps tamit foofu ci assemblée. àndandoo jàppale euh, professeur Daouda Ndiaye ñu investir six ba huit personnes à Tivaouane pour ñu fas yéene liggéey dimbali jeunesse su Tivaouane ba ñu développé parce que des na bu baree baree baree bare te ñun jeunesse bi ñoo ko ñoo war a wane suñu bopp ñoo war a dimbali waa Tivaouane ci taxawaay boobu la ñu toll te incha allahu rabbi dinañ ci dinañ wane sunu bopp ba ñu xam ne wane nañ ko bu baax a baax a baax. incha allah rabbi kon asalaamaaleykum mbooloo mi kenn ku ne maa ngi lay nuyu sa ak sa sant di la ñaanal jàmm di ñaanal wér ak wér la maa ngi tudd Moussa Tine dëkk Pambal ñu investir ma ci liste bi coalition action bu professeur Daouda Ndiaye Amadou Camara ak Fadera ak sama mbokk nawle yi fi nekk kenn ku ne ñu ngi lay ñaanal jàmm di leen ñaanal tawfiya bu baax a baax ba lépp lu ñu jublu si élection yàlla may ñu ci ndam bu baax a baax ba ñu mën bokk ci ñi nekk ci assemblée di wax ak waa wala di kaasal waa Tivaouane seen programme ak seen lépp bu weesoo loolu mën naa wax ci séeréer parce que puisque séeréer la maadu ci séeréer kon daa boyno ɓeegal la mi këñ daa mi gërëm ba mi santra en plus ga eñu ko dogal ga ɓoyi actuellement parce que daa eni élection depuis 1960 bi yote lay ku lala ka mos ka investir ga lissi mais ko dogal ka bi investir mboy ga lissi ɓoy ɓe talaluya ɓoy ɓe kanjum bi ɓu dimmal ɓoy ga bi ɓuɗo ɓoy ga bi ɓoy mi kaada kimna jamma jërëgeen jëf merci asalaamaaleykum mbokki Tiwaawan asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna bi yëpp li tax nag mo nuyoo noonu mooy gëm naa ni lii ñuy def nii àdduna bi yëpp ñoo koy seetaan ñoo ngi nuyu di sargal suñu mbokk sama mbokk yi toog sama wet yëpp mu nekk de investis wax nan ko jarul ma ci dellu siwaat mooy que ni euh, li ñu investir la coalition action seen seen taw feex suñu yitte bi nga xamante ni le professeur Daouda Ndiaye moom moo ko jiite ñu ànd si aussi ako ku mel ni Ndeye Salbe Diouf Ndeye Salbe Linguère Diouf moom it mu nekk si coalition boobu ñu ñëw ñoo ñëw tey fii di waxtaan ak waa yëpp di leen wax ni tey jii seeni doom seeni rakk seeni jarbaat ñoo nekk ay candidat pour xeex xeexal Tivaouane ci assemblée nationale mais taxawu taxawaay bu responsable nekk des députés très responsable te su ma waxee loolu war na noo xam ne ñi fi toog nii ñëpp ku leen gis xam ne c'est des gens responsables des gens yoo xam te ne xam na li ñu bëgg xam nañ tolluwaayu Tivaouane Tivaouane ku ne xam na ni jafe-jafe bari na fi lool lool lool lool bu jëm ci wàllu xëyu ndaw ñi chômage bi bari na fi non seulement chômage bi bari na fi mais Tivaouane dafa nekk gox boo xamante ne ay industrie kese moo ko wër damay faral di wax nag Tivaouane mooy le département le plus riche du Sénégal mais malheureusement c'est le département le plus pauvre du Sénégal pour la seule et raison li fi nekk si ay industrie nu mu baree bu ñu jàppale woon Tivaouane kon doomu Tivaouane bu ne di nga am benn taxawaay boo xamante ni ku xool xoolaat la ci kaw loolu ñun la coalition action département Tivaouane ñun ñu saa yun ñu jàppale fal ñu ñu dem taxaw fële si assemblée war a taxawal Tivaouane taxaw bu bu responsable comme ni ma ko waxee sànq bokk na ci loi yi nga xam te ne ñun gëm na ni dinañ ko proposé mooy ñu rendre obligatoire la RSE c'est un c'est une loi bu fi nekk mais c'est pas bien encadré parce que RSE c'est volontaire mais si on jamais obligatoire industrie yi nekk Tivaouane yëpp yëpp yëpp si département bi dinañ xam ne am na lu nu warloo ak Tivaouane te boobaa dinañ am sañ-sañu ak ak ak yelleefu taxawul dóor ci table ji na leen jox lañu lu ñu moom moo tax ñu ni gëm na ni tey jii bu ñu yóbboo assemblée nationale loolu bokk na si li njëkk a xeex ci kaw loolu mën nañoo permettre sax ay centre de formation professionnelle et technique pour le département de Tivaouane te loolu it fële rek lañ ko mën a waxee xëyu ndaw ñi waxoon naa ko dinaa ko waxaat li tax ma ne centre de formation professionnelle et technique da dem si industrie yi lan lay njëkk a wax mooy seen qualification moo waral ñu war a am des centres formation pour ndaw ñi mën a jàng am métier mën a dugg si suñu entreprise yi fi nekk mën a liggéey moo tax ñun ñu bëgg ni tey ji rendre obligatoire la RSE jot na ñu def ko te incha allahu rabbi bu ñu yàlla dimbalee ba ñu teg fa suñu tànk bokk na si li ñuy njëkk a taxaw pour proposer ko ñu ñu mën ko def bi si topp ku ni Tiwaawan ne maam ne maam bu Kunta Ndiassane ndax Tivaouane dafa am particularité yàlla daf ñu dimbali ñu nekk département boo xam te ne tey ji mën nañ ni département bu religieuse bu religieux la ndax ay ville religieuse daf ko daf daf fee nekk article quatre-vingt ku ne xam na ni le président de la république lay lay lay lay lay protéger te Sénégal dañuy wax ni dafa nekk réew mu am jàmm Sénégal dañuy dafa moo euh, am benn paix sociale boo xamante ni Euh, lu lii xew moo waral lii xew ci Afrique de l'Ouest bi yëpp si pays yi ñu wër yëpp munul am Sénégal loolu dafa am ñu ko ñu ñoo xam te ñoo ko suuxat ñan ñoo ko suuxat mooy suñu mag ñu baax ñooñu suñu mag ñu baax ñi nga xamante ne mooy tey ji maam Seydi Hadji Malick Bu Kunta Njaasaan Sëriñ Tuuba maam Limaamu Laay ak jàngu bi cene ba cene bay ñooñu ñoo defar tey ji Sénégal ba nga xamante ni lépp lu nit di ragal pour mu yegg Sénégal yegg siwu fi mais kan moo leen di protéger on a vu ces dernières que ni saa yu nit ñu jugee xëy attaqué leen wax leen lu ne ñu yàq leen ko saaga leen lu ne ñu wax leen ko te kenn du ci wax procureur du auto autosaisiru kenn du autosaisiru ñun ñu ni dafa jot loolu dakk ba incha allahu rabbi bokk na si li ay si projet de loi yi ñu bëgg a porter mooy que ni li nga xamante ni dafay toucher euh, les cultes ak si anam bu mu mënti nekkee côté bu mu mënti nekkee ñu dugal de projet de loi yo xam te ni daf leen di protéger ba ni benn samba booy dootu am sañ-sañu dugg si nekk si réseaux sociaux yi di saaga kilifa dina boo xamante ni dafa wax lu la arrangé wul su ko defee bu boobaa xanaa procureur bu dee loi bu tegu la xanaa dina auto-saisir dem jëli ji la ba nga xamante ni ñooñu dina leen wormaal ndax loolu ëpp na te jot na nag mu dakk yooyu noonu moo tax ñuy wax ni la coalition euh, action nekk coalition boo xamante ni la professeur Daouda Ndiaye ku ne xam na ko ku ne gis na ko ku ne xam na taxawaayam ci Sénégal xëy na nit ñi nag ñu ngi ko commencé ràññee ci Covid bi ci la ko nit ñi commencé ràññee mais mu nekk un professeur un professeur émérite un professeur boo xamante ni tey jii sous région bi ñooñu ko gën a soxla États-Unis moo ñu ko gën a soxla mu bàyyi yooyu yëpp ñëw Sénégal investir investiru fi. créer lu naan benn benn centre de recherche bu nekk biir université nekk biir fac médecine bu ñuy woowee SIGAS moom mu moom mu créer mu mu ñëw investir ko fa def ko fa di nekk di def di euh, def ay recherche ci lu jëm ci wàllu paludisme yu mel noonu kon ñooñu jar na jàppale ñooñu mooy ñi Sénégal war a génne ñu ñu xam leen ñun ñi nag tey jii ngeen gis nii muy abi Fadera di Moussa Tine di euh, Soxna Ami Gaye Aminta Camara Aïcha Thioune mi nga Aïcha Koundoul bi nga xamante ni moom la ñuy xaar moom la doon xaar yegg sewul nii ba tey euh, ñu nekk ñun ñëpp ay doomu Tiwaawan jàpp naa ni tey jii bu ñuy wax waa Tiwaawan ñuy kaas naan non euh, ñenn ñi investirun seeni doom waa ñii ñoo investir ay doomu Tiwaawan kon waa Tiwaawan nanu xàmmee bu baax lu ñuy def ñun nag ñëwuñu fi pour ñi la coalition action je dis bien la coalition action ñëwul pour wax ni Euh, dafa damay ñëw di xas kenn wala di ŋaañ kenn waaye di leen wax dëgg gi ñun ñëw euh, bokkuñook ñi nga xamante ni dañuy wut immunité pour parce que jàpp nañ ni nguur gi fi nekk ñooñ bu ñoom bu nu amul ay bu nekkul ay député nguur gi dina leen faaxa faagaagal rëq seen ndigg ñun bokkuñook ñooñ ñun bokkuñook ñi nga xamante danoo xasante démb tey jii ñu bëgg a ànd loolu toujours damay faral di wax ne loolu day wane ne intérêt moo ko lal nekkatul ànd bu dëggu ndax deux mois ci ginnaaw trois mois ci ginnaaw gis nañ fi député bu taxaw xas moroomu député am ñoom ñaar ñëpp ñu ni Tiwaawan la ñuy représenté tey ji ñoom ñaar ñu bëgg a ànd kon loolu ñu doon wax noonu du dëgg soit dañ doon nax waa Tiwaawan wala dañ doon jéem wut bës si kaw waa Tiwaawan loolu c'est un deuxièmement beneen coalition bi nga xamante ni moom lañ bëgg jël def ko une coalition forte waa Tiwaawan nanu yeewu gis nañ leen ñu ngi xeex ci réseaux sociaux di wax ni investir doomu Tiwaawan waa léegi coalition bi investir doomu Tiwaawan ñoo ngi nii moo tax ñu ngi woo waa Tiwaawan yëpp mag ndaw góor jigéen bàyyiwuñu kenn ñu ngi tàllal loxo ñëpp di leen wax ni coalition action ñëw na ngir taxaw taxawaay bi war pour que Tiwaawan xam ni ñu ngi soog a am député bu war a taxawal Tiwaawan député bo responsable député bu xam li muy wax député bu xam fi mu jëm député bo xam problème mu Tiwaawan ndax ñun nag jàpp naa ni du tey ñu commencé du euh, sonn ci problème mu Tiwaawan biñ ko dalee def yàgg na tey ji ñun defuñu sa présentation si suñu bopp mais ñi nga xamante ne xam nañ ñu bu baax ñu yàgg liggéey ak ñoom xam nañ ni Amadou Camara ku ko xam si social nga ko xamee professeur Daouda Ndiaye ku ko xam si social nga ko xamee ndax action mouvement social la ba dugg ci politique ba nekk euh, euh, tey jii mu dem ci élection yi social boobu ñu doon def xëy na moo ñu yóbbu ci politique social boobu ñu doon def moo tax tey jii ñu am sañ-sañu taxaw ne waa wan tey jot na ñu ñëw taxaw pour waxal waa wan ñun nag nekk ñu ñoo xamante ni comme li ma waxoon laay waxaat rek ñoo xamante fii Euh, dana am lu ñu daw làqu làqatu wuñu si ginnaaw kenn si ginnaaw kan lan làqatu population Tivaouane pour fas yéene leen a taxawal taxawaay bi war incha allahu rabbi ñuy ñaan nag euh, euh, le le 17 novembre incha allahu rabbi Tivaouane génn voter en masse pour la coalition action seen taw féex sunu yite pour que incha allahu rabbi ñu mën a dem assemblée xeexal len xeex boo xamante ni dinañ xam ni kat. ñun ñi ñu ngi soog am député bu ci war donc li ñuy fu ñuy terminer nag euh, mooy il faut gars yi xam ni la ñu yaakaar nax nañ seen bopp que ni y aura une très rude bataille fii nii si Tivaouane xaw ma kan mooy wax naan la bataille de Tivaouane aura mais nag xam ni ñoom ñu ngi soog a xam ne nag ki waral ñu naan la bataille aura lieu mi ngi soog a dugg si ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal yéen ñëpp.